di ko teg ci loxo yu tedd yu sunu sëriñ sëriñ Sidi Mbakke Cheikh Abdoul Ahad ngir nga jottalil ma nuyo yooyu ak ziyaara boobu ak cant googu nga jottalil ma ko sunu xalif général di sunu sëriñ di sunu wayjur Cheikh Muntaha Bachir Mbacké xalif général des Mourides sëriñ Sidi sëriñ bi moo ñu boole léegi ci bi ñuy génn autoroute bi mu ne la mu ne ma sëriñ Sidi laa la booleel ñu yegg ci ma ne la sëriñ bi ne la oto bi yóbbu ma ñëw fekk si la nga ne ma déedéet dañuy ànd dox te xawoon na xëcc lool loolu li muy wone mooy sa taxawaay ak sa yéene boo xam ne yaa ngi ko jëlee ci ndigalu xalif général sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te ànd ak wér maa ngi nuyu njabootu sëriñ Tuuba Xaadimu Rasuul di fi teew yëpp ci ndigalu ak woote xalif général di nuyu di gërëm njabootu maam Cheikh Ibra Fall ñoom it xalif bi woote na njaboot gi yëpp ñëw nañu toog di nuyu mbokku taalibe yi di nuyu mbokku Sénégal di nuyu sa rakk ju baax ji wax léegi ci sa tur ak ci turu xalif général muy sëriñ Bassirou Mbacké di ko sant bu baax moom sëñ Bassirou bu sëñ du Khadr Mbacké di nuyu njaboot gi yépp di sant nag bu baax suñu borom di sant sëriñ Serigne Touba di wax jërëjëf sëriñ Touba waaye di waxaat jërëjëfati sëriñ Touba. ndax du yomb li ñu dajale fii tey du yomb ndax projet la boo xam ni yéene moo ko lal te yéene ji mu ngi sukkandeku ci xam dayoo ak tolluwaayu Touba ci biir Sénégal xam àq bi nga xam ni war na am ci suñu diggante ak Touba sëñ Touba sànc ko wax nga ko fi léegi def ay digle santaane lu bare te ñu xam ne lépp dina ñëw kon nag li tax may sant mooy bi may suñu boroom xiiree ci tracé projet bu toll nii mu jàppale ma ci kàttanam ak si ñaanu xalif bi may santaat di gërëm te ñuy ñaan suñu boroom yokku leer sëriñ Sidi Moxtaar Mbàkke ndax bañ koy taxawal moom moo ñëwoon ànd ak sëñ Muntaxa bi tey def ñaan yi bàyyi sëriñ Muntaxa mu yeggali waxtaan wi kon seeni ñaan yooyu bokk na ci li ñu kattanal ndax projet 416 milliards du lu yomb waaye bind projet bi wut alal ju toll noonu am ko tàmbali liggéey bi mottali ko réceptionné ko loolu ndimbalu yàlla moo ci dugg ak ngërëmal sëñ Touba kon nag loolu tax ma sant bu baax a baax ndax Euh, wax dëgg yàlla projet bu am solo la te it danaa si ñëwaat léegi sama discours ci nasaraan ndax euh, dafa am nañu ko tracé dafa am it lu bare bare lu ñu tàmbali ci Touba ak lu ko ëppati te luy ñëw te du yàgg bu ci yàlla àndee loolu it danaa si ñëwaat léegi ci discours bi pour nga xam ne ilaat Touba bi bu yegsee tam am na ay yoon yu ko war a gàttandu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 ngir mu jëm kanam kon maa ngi jàll ci version francaise bi kon foofu li ma bëgg a wax mooy Ila Touba du rekk autoroute waaye dafa nekk autoroute boo xam ne biñ koy liggéey dañ ci dëxëñ ay xarale yu bees yuy tax yoon wi yëpp am na ay caméra télévision yu koy filme ba tax lu xew ci yoon bi daañu xam fan la su jafe-jafe amee dañ ko mun repérer liggéey ko liggéey bu am solo Ila Touba am na aussi ay poste yoo xam ni ak bërëbu noppalukaay muy ñaar ci wetu Bambey am na ay yoon yoo xam ni lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk dañ ko ubbi ngir jur gi wala doomu aadama yi mën di ci jaar bañ di traverser autoroute maa ngi ñaan sëriñ bi mu joxe ndigal si ñu moytu di dagg grillage yi ñu ngi doon xalaat sax ndax duñ si def courant du nekk nag courant buy buy ree wala buy gaañe waaye dana tax boo ko laalee dinga nga sa loxo pour ñu bañ di dagg grillage bi ndax bu ñu daggee grillage bi jur gi dana jaar jur gi dana si jaar te bu si jaaree dana yéeg ci tali bi te ku wax autoroute xam ne ay xel lañ si daw te loolu dana indi ay musiba ak ay lor kon suñu amee autoroute yu mel nii nag dañu war a changer tam suñu ay comportement ak suñu façon nu ñuy dawalee suñu façon nu ñu war a nekkee ci kaw tali bi loolu dafa am solo waaye yoon bi dañ xam nañ ne Touba la dem rëy na lool autoroute bi lu mu bees bees lu mu gaaw gaaw xam naa ni fii ak at yu néew Ila Touba dana fees dell kon prévoir nañu ni ñu ko yaatalee au lieu mu nekk deux fois deux ci kanam bu ko trafic bi laajee danañ ko mën def deux fois trois voies mooy yoon bu ne ñetti ligne di ci dem ñetti ligne di ci dellu loolu yëpp boole nañ ko ci liggéey bi Ila Touba tax na ci biir jamono jiñ koy liggéey lu toll si ñeenti junni doomu aadama liggéey nañ ci programme boobule feyeku nañu lu toll si ñaar fukki milliards ci ay salaire yoo xam ne ay payeur la ñu fay doomu réew mi nekk na lu am am solo ci koom-koom bi waaye jamono ji nga xam ne liggéey bi pare na du tere pour gestion bi lu toll si ñeenti téeméer ak juróom fukki nit daañu mën a liggéey ci autoroute bi ñii dinañ nekk si péage ñii nekk ci yeneen i liggéey pour que mu mën a jëm kanam pour entretenir la Touba ñu ngi dënk gum liggéey bi société bi ko tabax muy CRBC donc CRBC va assurer l'entretien l'exploitation jusqu'à nouvel ordre pour le compte de l'État du Sénégal. Donc je remercie d'abord l'entreprise CRBC, je vais y revenir en français, en rapport avec des prestataires. C'est ici le lieu de féliciter le gouvernement du Sénégal. Monsieur le Premier ministre, seen gouvernement ndigal yi ma ko joxoon doxal nañ ko ci anam yi ma ko bëggee woon muy liggéey bu gaaw liggéey bu set ah gouvernement bi def na ko kon danaa la jox félicitation gouvernement bi yëpp moo xam li jëm ci ministère yi ko ànd seq liggéey bi bi ci jiitu muy ministre des infrastructures te tey Abdoulaye Daouda Diallo yor ko ànd ci ak waa Ageroute may gërëm di sant directeur général Ibrahima Ndiaye moom ak ay cadram ak ay personnel gàcce ngaalaama si ni nga xam ne noonu la ñu taxawee waaye maa ngi gërëm l'ensemble des ministres ministère de finances ministère bi yor aussi wàllu euh, territoire yi parce que bëri woon na ay jafe-jafe waaye tous les services de l'État taxaw nañu ni mu waree pour que liggéey bi mën a antu de mu nekk liggéey bu am solo bu loolu weesoo ma sant ci kàllaama nasaraan ñi nga xam ni aussi ñoo liggéey liggéey bi muy entreprise CRBC nga xam ne waroon na def ñeenti ñeent fukki weer ak juróom ñu liggéey ko ci fanweeri weer ak juróom-benn loolu aussi CRBC je voudrais vous féliciter pour la qualité de l'ouvrage pour la rapidité avec laquelle vous avez réalisé cette infrastructure majeure. Remercier également la Exim Bank China pour son travail remarquable. Remercier aussi le bureau d'études Studi à travers M. Ben Youssef qui a assuré le suivi des travaux. Ila Touba s'inscrit dans un vaste programme d'infrastructures complémentaires et structurantes emblématiques de ma, face, de ma volonté de façonner un Sénégal nouveau. Un Sénégal avec plus d'inclusion, plus de solidarité et plus d'équité. Un Sénégal compétitif, résilient, apte à faire face aux risques géopolitiques Bref, un Sénégal de tous les possibles, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Dans cette perspective, l'autoroute Ila Touba se révèle comme un accélérateur de croissance économique qui favorisera une pleine valorisation des potentialités de la ville de Touba et des terroirs qu'elle polarise. En vérité, avec cette autoroute, C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour Touba, qui pourra désormais mieux assurer son rôle de deuxième pôle économique du Sénégal. Cette autoroute est aussi un vecteur de développement du tourisme religieux et un levier clé pour fortifier la vitalité culturelle et religieuse de Touba. Outre son impact dans la structuration de l'économie locale, Ila Touba facilite la circulation des personnes et biens dans le confort et la sécurité des usagers. Et pour anticiper cette dynamique urbaine, mon gouvernement a engagé dans la ville de Touba la construction de 163 km de routes, 18 km de pistes neuves ainsi qu'un important réseau de drainage et d'évacuation des eaux pluviales, financé à hauteur de 48,5 milliards de francs CFA. Il s'y ajoute la de 14 km de nouvelles routes, l'élargissement en trois de la route Mbacké-Touba, le contournement de la ville de Touba par l'élargissement de la route en deux fois deux voies sur dix kilomètres loolu yaakaar naa sëñ Bassirou waxtaanoon nañu si muy won la ne liggéey bi yemul ci Ila Touba waaye li ñu bëgg pour Touba mën a jouer bi mu war a en tant que deuxième ville économique ci réew mi moo waral ñu tabax 163 kilomètres de route mais yokk si 18 kilomètres de piste ak surtout réseau assainissement bi ñu def pour que ndoxu taw yi di bañ indi lor ci biir Touba mais surtout ak ndoxu biir kër yi loolu yëpp nag am nañu programme buy coûter ñeent fukki milliards ak juróom ak lu topp pour def programme yooyu waaye yokk nañu quatorze kilomètres yu bees yoo xam ne tali yu bees la yooyu. en plus élargissement deux fois trois voies wax naa ko Mbàkke Touba dinañu def yoon buy contourner Touba maanaam kii jël Ila Touba war a dem Daara Linguère wala Matam dina am yoon boo xam ne bu duggsee mën na bañ a di yokk circulation biir Touba day leru Touba def contournement daal di génn dem yoonam beneen yoon aussi bi nga xam dana ko jaar wetu Mbàkke daañu ko def su ko defee Touba dana am ñaari yoon yu koy wër ndomb ci ay périphérique loolu bokk na aussi ci yéene yi mu fas yéene mottali fii ci Touba ci loolu laa waxtaanoon ak xalif bi di sëñ Muntaxa yal na yàlla yokk taxawaayam yokk wér mu wax mu joxe ndigal aussi ak nangu ñu def boulevard de trente mètres yéen a ko tuddee boulevard trente ci lu toll ci seize kilomètres waaye aussi assainissement ak ay lampes muy éclairage des voies ak réalisation aménagement paysager loolu nag buñ koy wax mooy ci tali yi ñu defar ci ay trottoir ay làmp waaye itam def ci ay garab pour que dëkk bi tam mën a am ay garab loolu mooy cadre de vie bi nga xam ne fas yéene nañ ko mottali kon mën nañu wax ne liggéey bi ñu mottali tey muy ilaat Touba dafa bokk ci li sëriñ Touba Cheikh Amadou Bamba waxoon te sëñ Basiru firi na ko lu bare bare ak lu yaatu loolu day wane rek ne jëfam dafa teg lépp ci jaamu suñu boroom teg lépp ci liggéeyal yàlla liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg lépp ci li ñuy wax la mystique du travail mooy doomu aadama liggéey moo koy mën a jàllale loolu ay principe yoo xam ne moo ŋànk mouridisme moo waral ñu jàpp it ne Ila tubaab yi bu ñu ko liggéeyee ba pare war nañ fexe ba njëg li nekk tam lu yomb ci doomu aadama yi moo tax Euh, fexe naa ba autoroute bu njëkk bi ñu wàññi njëg yi ba nga xam ni léegi diggante aéroport Ndakaaru ba Touba euh, foofu yëpp daanaka 3000 francs lay mën a doon diggante Ndakaaru Touba boo ci boolee même autoroute bële du passé junni ci ko yor oto bu ndaw wala oto moyen loolu nag jërëjëf jërëjëf loolu lañu sëriñ bi sant muy ñu wax principe yi nga xam ni cheikh bi moom la wax ñu teg ko ci humanisme humanisme mooy lépp lu soxal doomu aadama ñu koy solowoo ñu teg ko it ci njub ak ci liggéey ak ci ragal yàlla muy la foi en Dieu waaye fonk doomu aadama nangu it toujours sacrifice ak muñ muy patience ak tolérance loolu moo waral ñu fexe ba valeur yooyu ni ko sëriñ bi waxee ñu fexe di ko yaatal ci biir réew mi dana nekk njëriñu Sénégal dana nekk njëriñu ndaw ñi lii moo tax nag pour que autoroute bi nekk autoroute bu bees bu mucc ayib dañuy recommander usagers yi ñuy wut carte su ko defee ku ci am carte dootoo taxaw di fay ak di jël ay weccet carte boobu dañ ko bëgg a tuddee carte xéewal muy boo xam ni mooy def diggante AIBD bi Touba pour 3000 francs dana yombal liggéey bi donc ci kàddu yooyu laa bëggoon wax tey jii la ñuy ubbi Ila Touba officiellement à la circulation kon jërëjëfati Serigne Touba maa ngi leen di sant.